ci buntu kër gi dajeeg baayam di ñëw ci kër gi sayyidina Muhammad yi ko lépp dajeeg Fatima ne ko Fatima foo jëm Fatima ne ko papa dama am takk waxuma la ko woon ku ñuy takk mu ne ko Fatimatu bintu Jahsh yow lan la ca mu ni ko papa maay invité d'honneur ba mu ni ko Fatima doo solu papa Fatima ni ko papa solu naa ba pare mu ni ko Fatima ni ñu koy sori dem ci ay nit Fatima ni ko papa man dama ko fàtte bii rek laa am benn bii rek la gisoo kenn ba ngay ñëw kër gi da nga nuyoo ma ni la papa bul agsi booba dama ko fóotoon doon xaar bu wow papaam ni ko Fatima mënoo woon wax Alioune mu jëndal la yére comme da nga am xew mu ne ko papa Alioune laaj naa ko waaye amul mu ne ko mënoo woon a ñëw ci man ma jëndal la mu ne ko papa rus naa laaj sama jëkkër joxuma may laaj sama papa bu ma sam papa joxee sama jëkkër rus bu ma joxul sama jëkkër rus papa pourtant li ma sol baax na da nga baax rek sama awra yëpp muuru la papaam jooy ni ko Fatima takk ñu nit ñorul yow la ñu kompaloo bëgg laa toroxal waaye waxuma ni sa yaay liggéey ci kër gi waaye Fatima sagal ji nga sagal sa jëkkër suñu borom na cee kontaan ba nee na du la seetaan nga ci ñaaw muus mi ma yor mël Fatima mël fa gi àjjana la jógee Jibril la ko indi léegi la ko jox nee mu jëm bu jógee àjjana dina rafet comme bi jógee Inde moo rafet bi jógee Chine rafet bi jógee Turquie rafet waaye waaye bi jógee àjjana dina rafet dina xeeñ neex Fatima dugg ci biir changé mël faam génn mer ni per taar ba yokk muy egsi ci buntu bi rek tombe cortège u bi egsi bintu jax si gis ko naar bu jaaxlee wéy ni lay yuuxu bintu jax si gis ko rek di wéy ni wéy ni wéy ni wéy ni yaa Fatima ko do man dama aay nag ay bari ko ko fekk ma may nettali léeg xoolaat samay film ma ne billaahi yàlla may na ma nettali bintu Muhammad ni wéy ni wéy ni wéy ni wéy ni jax si ni ko yow foo jëlee li nga sol mu ni ko lii amul fii mais fu muy jaayee wax ma ma jënd mu ni ko amoo njëgam te du jaayi fii mu ne ko Fatima lii boo ko solee man mi ñuy takk damay am gàcce damay torox Fatima ni ko pourtant ci portement bi lañ ko jëlee de laaluñ po laaluñ biir bataab bintu jax si ni ko kon nañu foom mu takk ndax boo solee lii ma sol lii dañ may toroxal fatima ni ko ëpp naa def nit ñaa nga toog di ñu xaar fatimatu bintu jax si ni ko bintu muhammad boo foom boo ma joxul lu mel nii ma sol dañuy foom mu takk ci fatima ni ko kaay ma jaay la bokk bintu jax si ni ko loo ko jaayee ma jënd ko billaahi bintu jax si bintu muhammad tàllal loxo bi ni ko jox ma sa loxo ma wax la lu muy jaar بنت جحش تالا لخو بي بنت محمد بنت محمد تي لخو بي نيكو دا غاماي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بنت جحش نان اشهد ان لا اله الا الله تي لا دون باي واشهد ان محمد رسول الله بنت محمد جلته تاتو ملفو بي جوخ تاخو نيكو خيتم كوكو دي خيتم ba mu mat bintu Mouhamad dagg ni ko duggal changé mëlfa mu changé ñoom ñaar bi ñu róole cortège bi ku ne ñëw moo fàtte ma sa mëlfa bi nu muy demee mu ne ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna Muhammadan rasulullah ñoom ñëpp ñu dugg ci lislaam mu róole li ma ci jublu woon xam nga mooy lan gannaaw sagal sa jëkkër Cheikh Alaaji Abdoul Aziz Dabakh Serigne Maodo si gis na ko ci gént mu ne ko Maodo ba ma duggee duggee bàmmeel ba tey mag ñu baax ñaa ngi may teral gisaguma sama maam sama baay alaaji Malick ndax moo may mujjee ay jël bu ma jëlee jox ma Cheikhu Tidiane Cheikhu Tidiane jox ma yonent bi sëñ Maodo nee ma ni ko lu may wax sa soppe yi mu ni ko nee leen rullu piisu Fatima ba yàlla jox na ma ko man Abdoul Aziz bu ëllëgee ku ma sopp ci xolam ma daggal la te ku ma daggal bu bu ëllëg nga dem aljana Cheikh ku bëgg na baax Malick yàlla na nga dem àjjana ñun ñëpp ñun ñëpp eh, si bi xumu baax ku bëgg na baax maa mama du ku bëgg na bi na jaatul mucc la ñu ni ko ci kan mu ni waxuma ñu baax ñi de lil mus ni bii na ñi yendu ci bàkkaar di fanaan ci bàkkaar ku ci soxul bëgg yoon ci Yàlla Muhammad maam Abdoul Aziz ci say bàkkaar wamanun min hawli yawmi liqaayi maam Abdou ne mu amee noonu la amee fële ca yow man qiyaam maam Abdou ne bu ñu génnee bàmmeel am na ñuy yor assurance touriste malaaka du leen téye ñu ni ñan la mu ni ñu bëgg si sayyidina Muhammad inna hubba nabi maam Abdou a di wax boppam nag nan la mel moom mu ni naka bëgg sayyidina Muhammad